ah après moom nga takk. non en euh, moom laa takk waaw après. donc boobu après moom nga takk. waaw ah, moom laa takk mais là on a divorcé si. Ah, d'accord d'accord kon après dinañ ci ñëw ñu jël ki nekk ci man dama ci nga ko faa quoi. ku baax. waaw ja jàllale ma ci émission bi. la. yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir. Imaam Jibril Sow Kër May Fall. noo tudd Jibril Sow. waaw. Kër Mbay Fall. imaam ah, Jibril Sow Kër Mbay Fall. ah imaam d'accord imaam ñu ngi lay déglu. waaw dama mhm. li ngeen teg daganul. Mhm. ki koy def dañ ko war a rey yéen seen tali bi dañ ko war a tëj. Mhm. seen plateau yi. seen CNRA CNRA dafa war a jël d'accord alors euh, ñu ñëwaat ci ci ci li Tyco Tito doon wax euh, bokk na ci li nga xamante ne euh, parfois aussi inconvénient wax nañ ko sànq mooy nga tatoué koo xamante ne da ngeen nekk ni juste copain copine après. ngeen ngeen ngeen sëy wala parce que ngeen divorcé tatouage boobu noonu mënatul dem ci yaram man jëkkër sax du ma la tatouage du ma laal fa d'accord ok mhm. euh, defe naa mi fa ne mais en fait dama bëggoon wax léegi-léegi ci imam bi euh, Euh, ah oui vas-y vas-y non xam-xam fii dañuy toog waxtaan et tout. dañuy waxtaan am nga am sa xalaat. ok d'accord man maa ngi ci lii kii mi ngi ci lii kii mi ngi ci lee mais euh, euh, moom dafa woote ma ne man la diw. Mhm. ma kii tey ñu dee mais parce xam naa quoi. waaw waaw waaw léegi la laa bëggoon bi. Mhm. dama ko ne carrément lan mooy islam islam mooy jàmm. Mhm. te maanaam jàmm mooy jàmm affaire bu jàmm amee fitna war am amul droit am comprendre nga mhm. waaw maanaam après quoi mhm. mais maanaam lu toll ni imam mhm. jug naan ay eh, koy def lii dañ la war a rey ok d'accord yàlla dafa ne carrément man maa sàkk bakkan man maa am droit rocc bakkan kon yow imam boo ne carrément diw dañ ko war a rey dee moo la tax a dugg safara parce que quoi maanaam euh, islam yoonu jàmm la trompe jàmm ju ànd ak maandute trompe man maa ngi liggéey ci ay cot yow yaa ngi nodd ji mais bon tamit maanaam yab ñi sa sa bàmmeel yow nga sa bàmmeel <laughs> man dama am sama bàmmeel bon ko su ma deewee sama papa du ma gunge sama bàmmeel imam boobu du ma gunge sama bàmmeel keneen kenn du euh, euh, euh, nekkul ne de moom may gunge sama bàmmeel tu nekkul ne carrément maanaam julli naa julli naa julli naa ba dee mm-hmm. mooy mooy loolu mooy waree mooy wane ni mm-hmm. naa dugg àjjana nekkul aussi maanaam quand kii mi ngi màndi mi ngi màndi bu dee dee dem safara tu vois mm-hmm. en xool xool bu set mooy dugal nit àjjana. d'accord yow ban ban ban jullit nga wala chrétien. mais man en fait man jullit laa. jullit nga en fait dama dugg ci jullit quoi mhm. mhm. xol. bu set mooy dugal nit àjjana xam la mooy xool bu set. Mhm. imaam bi toog na fi muy toog ji mais xool na boo yi boo yaa ngi tatuwee ñii buñ dee a rey sa xoolam wax. am na ñoo xamante ne dañuy dañuy dañuy wax ne euh, ce que doo yenn parties yi ngay yi parce que. yàgg na gis ñu koy tatoué problème du am mais partie yi ngay yi ngay na moo am na ku nekk ci ligne bi d' accord on discute on est naturel on parle on est au Sénégal oh, oh, ah. waaye ak fan nga ñu wooyee. waaw ah, Cissé la. ñu déglu tur ak fan nga ñu wooyee. Cissé waaw ça va waa HLM. waaw ñu ngi nii rek xanaa di wax dëgg yàlla di seen émission moom wax dëgg yàlla dama ko yàgg di suivre mais tey moom émission tey moom neexul moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. lan moo neexul. parce que ñi ngeen daral nii waru leen leen daral ci TFM. lu tax seen liggéey c'est privé. Mm-hmm. parce seen liggéey bi dëppoo diine ji quoi dëppoo diine ji. Mm-hmm. xam nga booy bi mu ngi osé di wax naa imam bu dee sawar la jëm. booy bi moom war na booy bi waru waru toog fi sax di wax ne jullit laa moom moom maanaam jullitam warut la ñëw fi di ko fësal parce que lii muy liggéey warut toog sa y di ko expliquer quoi mhm. c'est triché c'est mhm. triché waru waru leen ko woon dalal parce que seen émission bi moom wax dëgg fa yàlla man tey moom mhm. mooy loolu daal yàgg naa ko si daal mais li ngeen dalal ñi seen liggéey privé la affaire sa safara yooyu ne yàlla mooy àtte ëllëg on se semaine yàlla mooy àtte ah dëgg la mais booy bi moom wax dëgg fa yàlla man waruma leen balaa sax ñoom booy man dama ne yow mi leen dalal sax yow. Mhm. yow waroo waroon dalal ñii daal. mais mhm. booy moom da nga leen tegee à côté xëy toll mhm. tolluwaay la daal. mais émission bi daal rafetlu ma ko te wax dëgg fa yàlla rafetlu ma ko. d' accord ñii seen liggéey kenn waru ko wane ci télévision direct. direct nag en tant que DTV. télévision xam ne mbiru diine dam ci dox normal. non mais lii dafa ñaaw. vraiment émission moom nee na ko waroon a yemale léegi moom. waaw vraiment parce que télé bi royukaay bi. télé bi royukaay la si waroon ngeen war mën a génne. leneen lu mhm. gën a amal njëriñ nit ñi que mhm. d'accord parti alors merci beaucoup kontaan nañu ci euh, woote bi d'accord ñu continuer ak euh, Tyco parce que euh, li tax ñu dalal leen fii c'est-à-dire pour li ñu expliquer ni yéen ngeen mën ko comprendre bu fekkee ne intéressé na la tu vas le faire bu fekkee intéressé wu aussi bañ ko def moo tax ñu dalal leen fii pour waxtaan alors que attends parce que télévision aussi pour ñëpp la. Mm-hmm. te ku ne am nga sa xalaat boo xamante war nga mën a ñëw waxtaanee ko ci liggéey on a bien di guddi gi amul thème. Mm-hmm. on discute on waxtaan. et on dalal les gens parce que ci réew mi lañ bokk quand même. fa mm-hmm. fi tubaab ñu ñëw di wax lu leen neex. daluñ fi ay américain c' est des sénégalais c' est des jeunes. ñoom ñoo taamu liggéey liggéey bi donc voilà. Euh, alors bu fekkee am na dara lu ma ci bëgg yokk il faut pas qu'on oublie que au Sénégal on l'oublie tout le temps. Mhm. aujourd'hui Tycho est musulman mais Charlie est chrétien. alors on est on dañu nekk ci dëkk boo xam ne mhm. musulman yi kese dëkkuñu fi. Mhm. il y a des chrétiens il y a des athées il y a il y a d'autres personnes. donc il faut aussi ñuy bàyyi xel loolu. ba jàpp ne euh, diine benn côté rek moo am ci diine benn benn. Euh, Sénégal nekk benn diine rek la. fàtte ñeneen ñi. Charlie mii daf fi am wàll. ay mbokkam dañ fee am wàll fii la juddoo màggee fi yaroo fi. donc il est autant sénégalais que aujourd'hui Tycho aussi qui kii musulman hmm. il faut loolu ñu koy bàyyi xel et euh, li tax ñu ñu leen di fi dalal déjà hmm. parce que ñoom ñi ci ciy ñi ngi ciy tedd hmm. c'est parce que ay nit a jug di ko defi donc il faut pas qu'on soit aussi dans une société assez hypocrite pour di def yoo xam ne ci suuf alors que bu ñu ñëwee too euh, di fësal leneen loolu tamit fallait ñu ñu ñu bàyyi ko xel d'accord alors question bi ñu ko ne su ci ci ci fi ñu nekkoon euh, voilà defe naa ne ñu ngi nekkoon ci inconvénients yi nga xamante ne aussi parfois Euh, nit dina dina tatoué turu jëkkëram. Mhm. Euh, turu faram ah, wala turu copinam. après ngeen keneen ñëw d' accord allo. waaw bu baax ngeen di jaar allo. waaw allo oui. allo. leen di dégg. waaw ku baax. allo. allo oui. waaw ñu leen di ziar bu baax. yàlla yàlla ñu ngi lay ziar. waaw euh, man maa ngi tudd Jibril maa ngi wootee Géejawaay. Mhm. ñu ngi suivre émission bi. waay. Euh, au fait émission bi émission bu rafet la. Mm-hmm. waaye des fois il faut que ngeen di segg parce que ñi leen di seetaan ñëpp dinaay gone. waay. rawatina tamit waxtu bi ngeen koy teg. Mm-hmm. Euh, waajooju noonu ngeen invité Tyco. Mm-hmm. ni muy waxee dafa war a jàngaat communication un peu tu vois. parce que waroo toog télé wax n'importe quoi quoi wala di wax tamit n'importe comment. avec mm-hmm. n'importe qui en plus imam bi muy wax noonu xamu ko quoi tu mm-hmm. man imam boobu xaw ma ko mais man j'aurais bien souhaité que mu xoolaat communication am tu vois. Mm-hmm. métier la du ñun ñooy yàlla bi di ko jugé. mais na xoolaat waxinam. te baat booy mënti tudd rek ci nit muy cër war nga koo mën a xool ba waxee ko neneen. rawatina boo nekkee ci chaîne d'antenne. d'accord jërëjëf ci contribution bi chacun est libre ah woote wax xalaatam comme ñoom aussi ni ñu nekkee di def seen liggéey di ci di ko wax di ko waxee seen xalaat waa campement ngi xoox ñëpp ñu ngi seetaan émission bi pour te hmm. dire que vraiment émission bi am na solo parce que ku ci mel ne Khady Ndoye bu campement ngi xoox nee na toog fa mu toog hmm.